waaw fay naa la bro maa ngi si jàmm baax gis nga maa ngi fi nag maa ngi fi dama xawoon jaga di fan yii rek dama wérul woon quoi dama feebaroon yeah mais instant yi moom tane naa bu baax a baax sant naa yàlla bu baax a baax waaw. noo gisee drapeau naa si sélection bi nag mais finalement mujj maa ñëw quoi parce que gars yi dañoo dem ba benn instant ñu wor ah, ñu wor euh, Tamba waaw ñu wor waaw mais drapeau chef de l'État préparé woon naa ko normal. lan nga tuddee wor lan li ma tuddee wor mooy. nit ki noo ko sélectionné. yaa ngi dégg ngeen dem ba si diggi euh, première semaine wu semaine wu drapeau chef de l'État bi. ma lay woo lundi jëloo ma lay woo mardi jëloo mercredi ma lay woo jëloo te jeudi la ñu war a quitté pour dem kon su may wootee damay lijjante nu may def ba xam nan la ñuy def ba dem du dëgg. comme ñoom ñoo suñu kilifa ñooy suñuy entraîneur ñoom ñoo waroon def loolu mais man def naa loolu depuis jeudi bi ma leen di jot euh, boobu presque une heure ma jot leen waañ ma woo ko wax ak moom ne ko depuis fan yëpp maa ngi lay woo mais munoo ma jël mu ne ma si day fekk ma nekk réunion mais boo paree réunion da nga ma war rabale rappeler du dëgg mais rappelé wul rappelé wul man maa kon ne di ko woo ma ne ko ne léegi nag nan laay def ba ñëw ak heure bi jot ni mu ne ma saay boo mënee ñëw nga ñëw boo mënul ñëw nga toog yàq wax ji ma xam ne ma xam ne ab mag la musuma kaa gis nag mais xam naa ne ni mu waxee rek voix am jox na ma voix mag ma jox ko cër ne ko loolu nga wax mu ne ma waa ma ne ko garaawul ma woo sama staff woo ñi ma boole woon ak ñoom expliquer leen affaire bi nu mu demee boobu nag feebaroogu ma de yaa ngi dégg ñu ne ma garaawul dinañ ñëw fi léegi ñoom bu ñu demee si visite médicale bi fu ñuy defee visite médicale dañoo indi beneen waay xaw ma fan lañ ko jëlee ñu ne Malick waa ji la ñu indi moom mooy remplacer Gaskel parce que Gaskel woo nañ ko nee na dafa feebar. mais lañ fa dégg ak lañ leen wax xam nañ ko duñ ko ñemee nettali dañ leen a xas ba ñu rab bàyyi ñu dem ba pare waa ji mujjee wu ma parce que sama tur moo fa nekkoon. finalement chef de taa bi dafa jeex rek lëndi ma daanu feebar liñ ma ñaanal foofu moo ma dal nit kenn du ko waxal loo xamante ne dalu ko. ñun ay doomu aadama lañ ay xale yu ndaw lañu amuñu lu ñuy am. ba jaxase laa da ngaa wor yow yaa wor. ma jaxase ak dëkk bi ne man maa wor. damaa ngi weeru koor gi yëpp dama kaa entraîné di ko contact yaa ngi dégg di préparer drapeau chef de daal après ñu def def ju ñaaw jooju mais xam nga lu amul seede rek wóorul da laajte ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ak ñi ma doon jëflanteel waaw parce que am na ñoo xamante ne xam na lépp ni mu demee moo tax man kenn sonaluma di ma woo xanaa ku xamul mooy nekk di wax ne diw dafa man man bëre chef de l'État moo ma gën a lu ne ci àdduna yow xam nga ma man donte damay dem di ñàkk sax chaque semaine damay dem def li ma war parce que loolu moo ma fi téye waaw ñun amuñu lu ñuy reculer ci bëre. barke Serigne Bam raison bi nga xamante ni. ñu bari yaakaaroon nañ am nañ ci yow yaakaar. waaw ñu jaxase la ak sa diggante ak ñoom lan nga leen wax. waaw ma leen di ñaax rek ñu gën a góorgóorlu bañ a defaat loolu. parce que gis nga àdduna boo dee jullit da ko war a jëfee yaa ngi dégg du ko wax di ko dund. man loolu laa gëm man nu ma trahir doomu aadama man séeréer la séeréer laa nu ma trahir doomu aadama xanaa ma dem ba mënatuma dama lay wax li fi ne mënatuma mais trahir nit yàlla na ma yàlla mosal ci loolu. waaw ma leen di wax nag ñu góorgóorlu beneen yoonee buñ defaat loolu ba pare am na ñu bëri ñoo xamante ne sax woo nañ ma nee nañ ma wooñu ñooñu dañoo am problème xaw ban façon problème la mais buñ indi mbëri yi année bi beneen année dootuñ leen andi ñeneen la ñuy andi chaque année ñu indi ñoo xamante ne bokkuñ ak ñi ñu andi woon daaw loolu du jëf ju rafet waaw loolu du jëf ju rafet ñoom nañ ci bàyyi xel parce que am na xale boo xam ne fils de Fodé kalaame na ma ñoom te moom fa la nekkoon daaw moom it aussi waaw kon ñoom nañ xoolaat seen bopp surtout staff bi kon xam nga ne li may wax du ay fen maa ngi lay wax pare gu ma nga ne am na ku la kalaame kon xam nga ne li may wax dëgg la nañ góorgóorluwaat bàyyi loolu ñuy def respecté mbër yi yaa ngi dégg xam na ñoom mbër yi dañ leen di yóbbu pour luñ fa am mais fierté bi ak honneur bi waa Tamba la buñ ko gagné kon nañ ko teg si yoon ah maa leen di jaajëfal bu baax bégee gaynde ñëw wax dara yo ñëw far xaar ma jaajëf